Sénégal ñoo war a xam lu ñu am xam ne ni lii àdduna gi fereen fu mu amoon fu Serigne Touba amoon boo fa dëgg yàlla al muntaxaa feneen fu mu newoon duñu talati lenn lu àdduna gi lu dul di ko jublu rek di xool lan mooy ndigalam ñu siy dox terrain ñu koy bàyyi mooy day jii nag ñu siy soññe mooy réew mi di ko jëlee si borom réew mi ak ah, son excellence le président Macky Sall na jox ndox waa Touba na jox nopp sëñ bi di xool ay jëfam di xool ay doxalinam di def lépp mu jël loolu bàyyi tubaab yi teg leen fële ah appliqué lu waa Touba di doxee ah appliqué lu murid yi di doxee wax fo dëgg yàlla di dafay ndigal léegi-léegi réew mi soppeeku gannaaw bu ma sant yàlla di sant sang-sang yi di sant Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam di sant Serigne Abdou Karim Mbacké ba nu ma xam ne raw dina sant Serigne Abdoulaye Wade di remercier monsieur le président Macky Sall waa Tivaouane na maa ngi leen jàll li xew Tivaouane barke de Mor Ndiaye neexul kenn ndeysaan mais nag yàlla na ko fa yàlla yemale maa ngi ko jaay ko jaal waa Sénégal yëpp waaw sëñ mu rek si suñu jamono ji waaw kon donc ñu ngi koy ñaanal yàlla yàlla guddal ay fanam yàlla yokku ko ànd ak wër ànd ak wër la da si barke alxuraan kan Ndakaaru nag ndeysaan moom changé na Ndakaar waaye Ndakaar moom mënta changé boppam waaye nag ndeysaan yàlla lépp yokku ci réussir xamante boo gisee tey asamaan si suñu borom pour yàlla boo gisee niis bi mu niis nga xam du kenn ku dul Bamba di ñaanal nag waa Guyaar transport ak Ndikoumane transit ñoom ñëpp a sant bu baax di leen gërëm waa Sénégal bépp doomu aadama bu teg fi tànkam daal yàlla na lépp réussir ñi nekk 100 mètres yàlla na yàlla ibbi ñi nekk hôpital ñu feebar te ñu tawat yàlla na yàlla wàcce loolu yëpp si daraje Seydina Mouhamed sallallahu alayhi wasallam si barke sëñ Touba si doole sëñ Mountakha sëñ Mountakha nag yàlla na ko yàlla yokk na ko lii ah bu laajee faraa nañu faraa naat ni ma dundee ngan gi tey mooy Cheikh Mouhamadul Mountakha dikkug Ndakaarum gii daa mel ni Serigne Touba ci boppam coono yi nga xam ni amee woon na ko Ndakaar ci ñaari guddi yi Ndakaaram yooyee la la ko suñ borom fay xel wu njëkk wi nga xam ni teg nañu ko fii ci jumaa ji Cheikh Sidil Muxtaar Cheikh Mountakha la ko teg waaye ubbik ñu may Masalik nag da fekk Cheikh Mountakha di Serigne Touba moo ko ubbi ku xool mbooloo mii ma gis plateau yi nga xam ni gars yi seen plateau yi sax mabbu nañ leen ndax la nit ñi bëgg gis Cheikh Mountakha fee ñu ko dugal nee naa leer gi moo gën leer gi moo dugg ci taalibe yi نختالي بي بغنو كودو سيرن توبا سيرن توبا نك نينا وقد الحوائج الذين دامو في خدمه وهب لهم ما رام نينا ياو يالا فايل كيب كو خامني مو مي ليغيل من سيرن توبا فاي جي نك فاو لاي دون واي ديكو سيمو تاخا في تي نكارو لاي لاي الاسلام امنا نك يون مريد امنا نك بي سيخ مون تاخا جوغي كولبان دوكو سي رولسو رولسو رئيس بي رولسو بي رولسو بي موتاري موتاري داركو مو جيرو بي موتار ني ورما ماني موتاري ورنا ماني موتاري stade yi war na ma de ñun ma lu xaw man la Cheikh Mountakha nekk ci Rolls Royce bi Rolls Royce bi. Rolls Royce keroog bi sëñ Tuubaa yéeg ci ci aynu ah di liggéeyal boromam bi tey sëñ Tuubaa suñ borom faye na Cheikh da nga dem ba xalif boo xam ne bu ëllëgee waay waay avion lañ koy wutal xam nga avion bi luñ ciy bindam murid sadix sëñ Tuubaa xalifam sëñ Tuubaa yéeg ci avion ñu di ko teeru wàcc wala jël privé fa la ñu jëm liggéey bi sëñ Tuubaa dootu dellu gannaaw ukurimatul abraar bi naayim wa fujaar fi daj daal ba dajatoo daj bay dajale ñàkkuloo koo dajal Suéltala suufas Dakar am na ndam tey lii li sëñ Bamba mébét tey lu waay ñaan tey fii sa soxla sëñ Bamba dina ko defal waaye tey bi ma dugg see ci jumaa ji gis sëñ Muntaxa sama yaram dafa daw dama sama xel dafa dem ci sa xarit bu baax ba Omar Ba Senior di doomi sëñ Muntaxa ñoo ngi koy ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm tey Dakar am na ndam waaye l'islam am na ndam tey la l'islam bàkk ah, ñoo ngi ñaan sëñ Muntaxa yàlla na dund téeméeri at téeméeri at bu commencé ren téeméeri at

الدكتورة خادم الرسول ku neex a waxtaane ndax dañ koy misaare rek jant boo xam ne daanaka ceeneeram yi yegg na fépp ci àdduna moo tax sëñ Touba ku neex a waxtaane la euh, ñu gën koo xam nag ci sëriñ Touba waaye turam dëgg-dëgg mooy Ahmad ibnu Mouhamed ibnu Habibillah euh, gane jamono ci atum fii ci senegal euh, ci ca Mbàkke Bawal waaw ci ni ñu koy tënk rek bu dee ci tubaab dañuy wax ni ci 18e huitième siècle waaw ci nga jégal ma ci 19e siècle ci la gane jamono nekk nag koo xam ni kéemaan la ayatu min ayati la nekk kéemaan ci kéemaan yi suñu borom yi ndax ginnaaw bi mu mate daal dal jàng jàng naa alxuraan fi doomi soxna yi jaar jaar na fa jàng alxuraan jàng xam-xam nekkan ku déggal waay juróom takkoog moom nekk ak moom xam naa dañuy gàttal rek ah. nekk ak moom musta tàggoog moom Maam Mor Anta eh, fi nga xamante ni moo di Jolof wala boog foofu di Bawal dem Saalum mu fekk ko Saalum nekk fa moom di jàng alxuraan ba ni Maba Jaxu Ba daano ca xarab siin eh, moom Maam Mor Anta Sali ñibbi si waat fii di Kajoor mu ànd ak moom nekk fa moom ba waajuram génn àdduna mu daal di koy taxawu doon na ko ca njàngale ma ak ca xam-xam ba eh, nekk nit ku baax jaar ci ay tarixa yu bare bari ba ni ko suñ borom maye mu am mu taxawal tarixa boppam te mooy ak tarixal muridiya mu nekk lu am solo mm. nga xam ne bu nga ko taxawalee nu nga ko taxawal ci dëkk bu ñuy wax Mbàkke Kajoor ci atum 1883 euh, 1883 ci la ko taxawal bu ko taxawalee nag euh, dem na ba Mbàkke Kajoor xaw xat ci moom mu jógee fa sanc Daaru Salaam yàggul Daaru Salaam waaye daal di sanc foofu nga xam moo di Touba Touba nag euh, sëñ Xaadim man na ni fa la yoonu murit tàkkee voilà maanaam tasaaroo yaatu lool ni nit ñi ñëw di dugg ci yoonu murid afwaajan ah furaada wa afwaajan mhm, mhm. ay mbooloo ay par kenn kenn ñëw di dugg ci yoonu murid li ñu demee ba Touba tamit nekk fu yaatu ci moom mbooloo mu bari dem sanc Mbàkke Baari Mbàkke Baari waaw bi nag loolu day mel ni jaaxal jaaxaloon na tubaab yi mm-hmm. maanaam yoonu murid ni mu doon doxee ak yaatuwaay bi bariwaay bi mm-hmm. ni muy màggee mm-hmm. jaaxal na tubaab bi waaw moo taxan nag ñu koy convoqué mu dem Ndar ñëwee ndar nag dañuy gàttal rek bu ko attee eh, ñu ko dañ ci doon werante sax ci atte bi ndax dañ ko war a dañ ko war a jéem a li ñuy wax assassiné ixtiyaal wala boog dañ ko war a dañ ko war a tëj mais li ñu mujj décidé ñoom dañ ni léegi nañ ko génn réew mi léegi nag atte bi daal dog ci atum ñëw Ndakaaru Ndakaaru gi nga xam ne fi la Masaalikul Jinaan amee ah. mu fanaan fii Ndakaaru ñaari guddi yu métte métte métte hmm. xam naan dama ciy jaar rek ndax li ñu tax a jóg dëgg-dëgg hmm. ñëwagun ci ñaari guddi yi waaye damay wax rek parcours Sëñ Tuubaa ah, bi fi fanaanee ñaari guddi yàggul dara ñu hmm. jële ko ak euh, Ndakaaru yóbbu ko nag exilé ko yóbbu fa juróom-ñetti at yu manqué tuuti ñibbi si waat ci réew mi ci atum 1902 yàggul dara ñu àttewaat ko ba mbooloo mi euh, ñëwaat di jokkuwaat ci moom yoonu mu gën a yokkuwaat ñu daal di koy yóbbu fële di ca Mauritanie ngir rek bëgg mbooloo mi tasaaroo. waaw waaw waaw duñ ko yóbboo mu def ay at. ñibbi si ñu yóbbuwaat ko ci yéen jolof yàggu fa ñu indi ko nag Jurbel fa lañ ko téye mu def fa fukki ak juróom benn ba suñ borom dogal ci li mu dogal ci moom loolu ci gàttal mooy dundu Sëñ Tuubaa lépp nag di ay xéewal lépp nag di ay di ay xéewal ndax dindi na bàyyi fi ay ay ay doomam ñi ngi fi macha allah mu bàyyi fi aasaar yoo xam ni warees ñu ko gën a gëstuwaat